maa ngi tudd Nicolas Ndiaye député Nicolas Ndiaye secretaire général Ligue démocratique tey màggal gi 18 safar mu ngi jege si ñu ne dañuy teel a ñëw balaa nit ñi bari pour ziyaare si sëriñ Muntaxa ñaan ko mu ñaanal réew mi ñaanal suñu coalition Benno Bokk Yaakaar ñaanal suñu parti Ligue démocratique délégation bi ànd ak man nag Aliou Ndongo mu ngi ci mooy chargé des affaires religieuses Moustapha Senghor responsable des jeunes de la LD Ousseynou Aïdara bi représenté fii la coordination des cadres de la LD Penda jien bi représenté mouvement national des femmes que Tamsir Diagne suñu camarade Tamsir Diagne yàgg lool ci parti bi ki ñu représenté fii Mbacké ak tuuba léegi nag ñu ngi gërëm sëriñ Gueye moom moo ñu faciliteel euh, moo ñu yombalal gisu Serigne bi vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm kontaan na ci kontaan nañ ci liggéey bi mu def ñu ngi gërëm aussi Serigne Khadim Mbacké mi sama rakk di doomu Serigne Mbacke Madina dama ko woo rek mu boole ñoog sëriñ Gueye Serigne Gueye yombalal ñu lépp gise nañoog Serigne bi laaj naa ko mu ñaanal ñu ñaanal réew mi ñaanal suñ coalition ñaanal euh, suñu parti Ligue démocratique ñaanal Sénégal pour élection yi ñu jublu yàlla sotti ci ndox mu sedd guy problème bu grave la parce que ndaw ñi suñu jëlee gaal bi moitié bi des ci biir ndox mi beneen moitié bi dem ci désert bi des ci désert bi loolu lu garaaw la dafa mel ni dañuy xaru parce que ñëpp xam nañ ne traversé dugg ci gaal dem ba Europe ci gaalu loo bant yi risque bu rëy la su jeunes yi def loolu ça veut dire que dañoo désespéré loolu nag su amee cim réew waa réew mi en particulier njiit yi dañoo war a xoolaat affaire bi bu baax joxaat espoir jeunesse bi problème boobu dañ ko war a téye ak ñaari loxo c'est vrai président Macky def na lu bari ci xëyu ndaw ñi ci liggéeyu xale yi waaye des na lu bari nguuram ak nguur yi ñu jiitu waroon nañoo gën a saytuwaat problème mu xale yi pour jox leen liggéey joxaat leen espoir loolu nag segam xale yi ñi ciy dee tol nañ nii nañu saytu mbir mi def une nouvelle offre politique boo xam ne ni dina joxaat espoir xale yi jox leen liggéey euh, neexuta wax waaye une partie mun nañu ne lajj am na ci parce que am réew suñu demee ba xale yi bugg a génn réew mi fi ñu toll nii su nekkoon ab tali moo ñu séparé ak Europe ñu ubbi tali bi ku mu neex dem Europe lii des ci xale ci réew mi dootul bari waaw su xale yi demee kan mooy tabax réew mi réew mi dootul am ku ko tabax moo tax dañoo war a saytuwaat mbir mi lajj moom mënuñ ko cee écarté dañoo war a saytuwaat mbir mi c'est du Sénégal rek yeneen réew yi ñu wër yëpp. ay xale dañ fay jógee di dem ci géej gi di dem ci désert bi moo tax dirigeant Afrique de l'Ouest yi dirigeant Afrique de manière générale dañoo wara saytuwaat mbir mi xoolaat ko pour joxaat espoir suñu jenes yi